ok alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ñu ngi santaat suñu boroom subhanahu wa taala di dellusiwaat ci suñu téere bi di risaala bu ibn abi zayd alqayrawaani sunu darsi bi passé nekkoon na nafar ci buntu li ñuy tuddee baabun fi nikah wa talaq ñu jëloon ca bunt bu jëkk ba nafar ko di ci nafar ba yëg si tey ci fi muy waxee wa man qaala li zawjatihi anti taaliq yow mi yor samaru daani bi xoolal page 468 nga xool ci ñaareelu ligne bi fa ñaareelu ligne bay jeexe rek da ngay gis mu ne wa man qaala li zawjatihi su dee mool bu xonq ba bu traduction bi yaa ngi ci page 72 am na beneen mool bu rose it 184 bu dee mool bu rose bi yaa ngi ci 184 bu dee bu xonq bi yaa ngi ci page 72 wa man qaala li zawjatihi anti taaliq kon mbokk li bunt la boo xam ne jotoon nañ ci jël ay bind yu bari tey nag mu ne wa man qaala li zawjatihi anti taaliq albatta koo xam ne def ne soxnaam yow de fase nañu la fase goo xam ne gu dog la fa hiya salaasa fa hiya salaasun ñetti fas lañ koy considéré daxala biha aw lam yadxul na fekk duggoon na ci moom ay bokk nañu siq ab sëy wala duggul ci moom wa in qaala bariya su ne ko it yow aji ko mucc nga aw xaliya aji ku ñu bàyyi nga aw xaraamun wala ku ñu araamal nga aw xabluka ala xaarimika xaaribika wala sa buum mi ngi sa baat fa hiya salaas yooyu yépp ñett lay doon fi llati daxala biha ca ba nga xam ni dugg na ci moom ci sëy wayun waa doos na dees dees na yéene fi lati lam yadxul biha ci loo xam ne kenn duggagul ci moom bokk bind bi ñu jël bokk na ci bind yi gën a compliqué ci indi jafe-jafe ci wàllu sëy ca mooy boroom xam-xam yi dañoo wuute ndax ab sëy wares na koo mën a tas ñetti fase ci benn place am na ci ñoo xam ne dañ ne waaw di sukkandikoo ci loo xam ne Omar ibnul Xattaab moo ko defoon mu nekkit la gën a siiw ci mazhab Maalik doonte ne ne am na yeneen i boroom xam-xam ñoom la ñu gis mooy déedéet ab sëy mu ne su koo tas ñett yoon ci benn place ñoom it indi ci seeni tegtal la ca gën a dëgër mooy jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam amul woon jamono Abu Bakar Siddiq amul woon Omar ba mu koy def da koo defoon ngir yar nit ñi waaye cosaanu fase moom mooy li yàlla wax at-talaaqu marratan fase ñaari yoon lay doon su ko fase waatee muy ñett mu ndog koo xaram suñu delloo nag ci lenn ci mazhab Maalik ñoom dañoo gis ne ab sëy mënees na koo fase ñetti fase ci benn place looloo tax ñu ne boo nee sa soxna may naa la yow fase nañ la fase gu dog may fase naa la fase gu dog suñu diggante ndax fase ñaar rek la am na lu ñuy tuddee talaaqu raj'iya mooy fase boo xam ne des na ko mën a delloo ak buñ dul mën a delloo ñu ne nag comme nee nga ko fase naa la fase gu dog kon bu ñuy delloo amu fa kon ñetti fase rek la mën a doon loolee mi ngi noonu ci loolu it la ñuy wax boo ne ko yow day mucc nga ci man wala yow day doon nga koo xam ne ku ñu bàyyi nga aram nga ci man sa buum mi ngi sa baat yii yépp boo ci wax day nekk ñetti fase mbokk lii ci wàllu làmmiñu arab dafay am faso safaanoo ak nga ne sa soxna rek anti taariq fase naa la buñ ñëwee sunu làmmiñu wolof ñun li ëpp looy dégg mooy diw day may na ko baatam du loolu ngeen di dégg rek may na ko baatam may na ko baatam boobu yëg nga xam ne loolu luñ ciy jublu ñoom mooy kon moom léegi moo moom boppam ay kon fase ñetti fasali doon looloo tax côté njàmbur ak kajoor ak saalum ak képp ko fay wax sa soxna may naa la sa baat yow am nga problème soo ko xisee ba wax fokk mag ñi dañ naan baada zawji rek boo dee donn amu fa baada zawji rek waaye nag mbokk jullit loolu doonte ne ne ah islam day saxal na ko ci ay boromi xam-xama waaye suñ jamono cee jii ak ni nit ñi réeri diine ak ni jafe-jafe gaawe am ci sëy ñun day dañ ci gënal mooy ñu delloo mbir bi ci cosaan fase daal benn yoon la mën a doon soo ko fasee mu dem boo ko takkaatee muy sa soxna nga fasewaat ko muy ñaar nga takkaat ko muy sa soxna soo ko fasee ñett nag mu doog a nekk baada zawj lii daal mooy da nga xamee ne nii ci suñ jamonoy tey jii la gën a not ci li ñu war di ubbee jàpp nañ ne mooy loolu ndax boo ko waxul nit ñi it lu ci bëri da ngeen dugal ci njaaloo rek aka bari tey ay nit ñoo xam ne seeni soxna fase nañ leen nañuy waxal nee nañ ñël seen diggante xaram nañu teewul ñu àndaat loolee nag mbokk bokk na kon yaatal nga suñu borom yaataloon loolee ñu bàyyi ci xel bu baax ci wàllu googee ñu ngi noonu kon nañ fàttali naam léegi kon loolu mooy bind bu njëkk bi doonte ne ni mi ngi wax ne loolu nag mooy koo xam ne sëy nga ak moom ba pare amma ki nga xam ne da nga koo takk te mosoo ànd ak moom ci lal su boobaa moom boo ko waxee kaddu googu du tee benn fase lay doon xanaa lu dul nga yéene woon ba nga koy wax de ñetti fase nga ci jublu waaye almuhim wax naa la juyoo ba ci borom xam-xam yi juyoo ak la nga xam ne ñun moom lañ ca tànn suñ jëlee beneen bind mu ne wal mutallaqatu qabla al bina kañi fase jiitu ñuy ànd ak moom ciblal laha nisfu sadaq dana ko ñeel genn wàllu can illa an taafuwa du dul xanaa moom mu jéggale anhu ca can googee an taafuwa anhu hiya mooy moom ci boppam mu jéggale in kaanat sayiban su dee ne moom ab jéeg la wa in kaanat bikra bikran su dee ne jànq la fa zalika ila abiha su boobaa baayam mooy jéggale wala mu ñàkk jéggale wa kazalika sayid loolit la ñuy wax ca sang fi amatihi ca la nga xam ne mooy ab jaamam mbokk suñu boroom dani ida tallaqtumu nisaa min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna farida fa nisfu ma faradtum illa an yafawna aw yafaw billazi aw yafaw allazi bi yadihi uqdatu nikah tey yaa ngi takk soxna nga ne ko yow de dinaa la may deux cent mille ah ñu may la soxna si biñ la mayee soxna si avant ngay ànd ak moom ci lal nga fase ko su boobaa lislaam danaan comme yaa ko diggoon deux cent mille cent mille yi moom farata la nga jox ko xanaa lu dul soxna si baal la bu dee kii nam ko firee mooy bu dente ne ab jeeg la bu ma sa sëy nga takk ko fas ko ci ànd ak moom ci lal su ko neexee moom mu baal la ne la baal naa la bu dee jànq la nag xam ne musul ànd ak benn góor nga takk ko fase ko ci diggoon ko su boobaa baayam moo la mën a baal baayam moo la mën a baal ne la baal naa la wante ne boo dellu woon ci yeneen mu fassiroone yi ñoom nañ koy firi mooy illa an yaafawna aw yaafa lazi bi yadihi uqdatu nikah ñoom dañ naan soxna si nga dig deux cent mille nga fase ko imma moom mu ne cent mille yi nga xam ne farata la baal naa la ko wala boog yow ci sag baax yow mi nga xam ne yaa takk sëy bi te yaay tas aw yaafu lazi bi yadihi uqdatu nikah ñoom dañ koy delloo ci jëkkër ja ñu ne maadaama digoon nga ko deux cent mille ba pare fase ko jox ko deux cent mille yi ba mat sëkk suñu borom nag ne wa an taafu aqrabu li taqwa su boobaa ku jëkk a bale rek day wane ne kookoo gën a ëpp ak ragal yàlla imma fami ndaw si bale cent mille lañ leen waroon a jox wala imma jëkkër ja bale mottali deux cent mille yam yam diggante woon buñ jëlee bind bi ci topp mu ne ومن طلق فينبغي له أن يمتع ولا يجبر كيغا خامني دا فا فاسي ku mel noonu day war na kam fase mu jël dara teg ci loxoom ñu ngi noonu kam fase mu jël dara jox ko doonte ne nag kenn du ko ci forcé wala yujbar والتي لم يدخل بها وقد فرض لها فلا متعة لها ولا للمتخلئة من ولا للمختلئة كنا خمنا دنيكو فسي تجتو نيو عندك موم تلا te am nga farata boo xam ne jox nga ko ko imma genn wàllu la nga ko waxoon wala nga mottali ko ku mel nii moom kenn du ko jox dara boo ko fasee lu dul la nga xam ne moom nga koy jox soxna bi summikoonte ak jëkkëram it ku mel ni amuñu lenn loo xam ni dañ ko koy jël di ko ko jox donte ne boo demee suñu borom dani walil mutal mutallaqaati mataun bil ma'ruf xaqan alal muhsinin ki nga xam ne dafa ko fase jëlal dara nga jox ko muy aq ñeel ñi rafetal su doon dëkk bu mel ne Sénégal bokk na aada ju ñu aada woo doonte ne lislaam waxut loolu waaye ñoom seen aada jigéen buñ ko fasee day dew buub néeg bi yépp yóbbu waaye nag mbokk loolu nañu xam ni day fekk mu neex ka nga xam ne mooy borom këram loolu ñu bàyyi ci xel bu baax c'est pas automatique que noonu rek la war a demee rawatina léeg-léeg mu pose problème benn waaye boo xam ne benn néeg la am mook soxnaam meuble néeg bi mook soxnaam ñoo ci nekk tas am na soxna si ñëw buum néeg bi yëpp yóbbu xam nañ xel nanguwul loolu loolee doon na gën a yomb bu doon waa ji daa am ay soxna soxna bu ne sa néeg mu am lu mu la fa defal ka tas yóbbu la nekk ci néegam dana woyof waaye daal li ma bëgg a wax loolu aaday Sénégal la waa ji nga xam ne mooy jëkkëram su dee lorom nekku ca mu toléré ko loolu dara nekku ca waaye bu dee nekk lorom ma nga ca bu ko neexee ne déedéet xaaral ma jël leneen jox la bagage yi dama ko soxla wala mu ne la yóbbul lal bi bàyyil ma armal bi yóbbul armal bi bàyyi ma lal bi ala kulli xaal suñu borom mu ne nañ ko def la nga xam ne mooy muta boo xam ne mataan bil maaruf ci njëkk rek loolu mbokk mooy liñ liñ mujj jàng buñ jàngee bind bi ci topp wa in maata an illati lam yafrid laha wa lam yabni biha bu deen nag daa faatu ca soxna sam takkoon jotu koo tuddal can gum koy jox jotu la ànd ak moom ci lal fa laha miiraas soxna soosee day donn wala sadaaqa laha waaye can du ko ñeel walaw daxala biha bu doonte nag dugg na ànd ak moom ci sëy kaana laha sadaqul misl danañ ko jox can gu tol ne ga ñuy jox ay nawleem in lam takun radiyat bi shay'in ma'lum in lam takun radiyat bu dee ne gërëmul ci mbir moo xam ne bu ñu xam la kii day indi benn cas benn waaye ngi nii may nañ ko soxna ca waxul can gi mu koy jox loolu it muy wañe ne mbokk sëy mën naa wér ca kenn tudd fa can comme niñ ko jàngee sànq sëy mën naa wér ci kenn tudd fa can may naa la sot sama doom nangu naa seede nañu allahuma nag bala ngaa ànd ak moom cib lal fokk nga am loo ko tuddal ci can mu ne nag bu dee ne moom fase na mu dee ne moom faatu na àndul ak moom ci lal te waxul dana ko may dara ñu ne soxna su mel noonu moom dañ koy jox wàllam ci miiraas jeex na dañ koy jox wàllam ci miiraas bi ñu ngi noonu bu doon tere nag jot naa ànd ak moom ci lal doonte ne tuddalu ko can gu mu koy jox may nañ ko ko ànd naa ak moom ci lal même bu ko tuddalul can ca loolu it njuumte ma nga ca ndax kenn amul droit ñu lay may soxna nga wëlbatiku di ànd ak moom ci lal te joxoo ko can wala nga dig ko can waaye bu doonte ne am na it waaja faatu su boobaa kon ni ñuy def day jël can ga ñuy may nawleem ya ñu xam ci dëkk ba génne ko ci alalu waa ji ba pare ndaw si donn encore waa ji mi nga noonu ba pare ndaw si donn encore waa ji atte bi mas na dikkal ibnu mas'ud benn ñu ñëw ne ko ah diw day daa takk fi soxna tuddalu ko can léegi nag faatu na ibnu mas'ud ne ah li ma ci xalaat day mooy nañ jël can gu toll ne ga ñuy jox ay moroomam jox ko ko ba pare mu doon su dee jub na ci yàlla la jóge su dee jubul nga xam ne sama njuumte bopp la kenn ci sahaaba yi nekkoon foofu ne ko day lii nga wax ni toog naa yonent bi alayhi salaam atte ko ci doomu diw yu loolu daloon in masul de jóg daal di sujuut sant yàlla bi ko yàlla dëppali ijtihaadam dëppoog la yàlla ak yonentam atte kon loolu la ñuy wax ci bépp jigéen boo xam ne may nañ ko góor tuddalu ko can ba pare mu faatu su boobaa warees na koo jox la ñuy jox ay moroomam su dee waaj a ànd na ak moom ala kulli xaal ñoom ñëpp dëppoo nañ ne dana donn loolu mooy aju ci wàllu googee su ko defee comme ni ñu ko doon defee rek jot nañ fi jàng lu mat ñetti wala ñeenti masala balaa doomu aadama yi balaa nit ñi di fàtte su dee am na question bu ñuy posé ci lu aju ci loolu ñoo posé ko wala ñoo jàll ci beneen bind waaw naam bismillah ndax waajur moo am droit di tuddal doomam can waaw waajur de moom mooy kii maye doomam loolu moo taxit moom ci boppam moo war a xool lan mooy li jaadu ci doomam mu daal di koy tuddal can googee amma doom de it bu dee ne dafa doon koo xam ne nii ku mat la majeur na màgg na ku mel noonu it am na droit lu ko bàyyam tëralal ca néexu ko mu ne lii néexu ma ndax can gi baay bi moomu ko moom mooy ka nga xam ne moo ko moom moo cay may baayam moo cay may jëkkëram moo koy may ku ko neex su ko defee daal bàyyi am na droit woo ñu ne ko jox ma nanga ma may la sama doom waaye bi charte mooy doom gërëm loolee bàyyi bàyyi tëral loolu mbokk mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam naam bismillah waaw alayhi waaw waaw ala kulli xaal la mu indiwoon moom moo ko moom li suñu borom di wax mooy liy jóge ci sa moomeel dellu ci moom suñu borom nee na ku fase soxna na ko jox dara mu yóbbaale ci loo xam ne nii moomu ko woon sa alal la nga jël jox ko mu aju ca la nga xam ne mooy maaruf la maaruf nag mooy la waa dëkk ba di aada woo tànk lor amu ca mooy suñu aada woo ne fii kat képp ko fi fase soxna da nga koy jox dara loole yi tey da ngay gis asalan ay aada woo dëkk yoo xam ne dañuy aada woo sax ay takku dënn naan boo takkee sa wujju sa soxna boo ko takkalee wujju da nga koy jox dara loolu ay aada la suñu borom daal da ne nañ ko jox dara muy mataaon bil maaruf ndax yàlla lan muy jubluwaayam mooy sëy bi tas na tey mais nañu rafetal tas bi ndax ñi tas tey mën nañu ànd ëllëg bari na ay nit ay góor ak jigéen man mii am na ñu ma ci xam ñoo xam ne dem nañ ba bëggantewaat waaye tasin bu ñaaw bañ tasoon tax mënatuñu ànd su ko defee moo tax islam moom bëgg tas bi moom am na d'accord mais nag nañu rafetal diggante bi ba nga xam ne ëllëg gi si biir bu ñu bëggee ànd yi kenn du xalaat lu ñaaw la ma sama morom defoon loolee kon moo tax islam gën a insister ci ni jigéen boo ko fasee jëlal dara jox ko mataaw bil ma'ruf xaalis liquide lay doon matériel lay doon ak lu mu mën a doon daal jëlal dara jox ko wan ko ne yàlla jeexal na suñu diggante mais bañu ma la noonu wu ma la ila axiri mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah ala kulli xaal lu demee noonu lay wax fii liñ dëkk a jàng mooy yow mucc ngaag sa buuma ngi sa baataag firmee ko naag wala fii bokk na ci seen aada mooy nit ki boo koy labat si da nga koy jox guro mooy guro gi ñu njëkk a séddale mi ngi noonu loolu kon heure boo waxee sa soxna ne ko boo gisee guro nga yëy de yéyal loolu muy wane ne loolu ak fase la problème bi mooy bu dee xam nga dëgg-dëgg loolu lan lay firi bu dee xam nga dëgg lan lay firi te mooy loolu la muy firi mooy sama diggante jeex na bu la beneen góor proposé ab sëy nangul ko ndax sama diggante yow jeex na loolu moom bu xamee lu muy firi moom loolu dañ naan ak fase la mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam waaw bismillah naam can ak warugar warugar mooy can ñun ñooy nekk fii di am ay différence mais warugar mooy li war li war gor li war gor ci sëy mooy can yaa ngi dégg mooy warugar li war gor mooy farida suñu borom na dane wala junaha alaykum fi ma taradaytum bihi min baadil farida can mooy lan mooy ñëw nga ci wali yu bi damaa bëgg sa doom ah sama doom day pour ma may la ko temps ngay joxe temps loolee ngay joxe pour ñu may la xale bi loolu la ñu tudde can lu ñu tudd la benn buul wala lu ñu teqale la da ngay indi jur indi million indi télé indi nangam indi loolu lépp bu ñu ko boolee mooy can suñ muskile nag ñun fii Sénégal da ngay ñëw ci Baye Thiam na ko dama bëgg sa doom ah waaw waaw xanaa nga waxtaan ak jigéen ñi rek soo demee jigéen ñi da ngay indi un million ah yi kat ay sërëm yëpp un million lañ leen may ñu ne waaw da dem fu ne nga dugg fa ba la jële un million ñu dem ca jàkk ja nag ñu ne can gi quinze mille la te fekk yow jaraaj nit ñi un million ci kër léegi kon bu bu bu sëy ba tase ñu ne quinze mille lañ la yoroon un million yee fan lay féete ala kulli xaal mbokk ab sëy la nga xam ne dañ ne la lii lay joxe pour ñu may la soxna loolu la ñuy tudde can dañ koo boole wala dañ koo teqale can gañ la tuddal nag yow bu ñu la ko joxee ba pare yow sa coobe rek bopp la ngay jël di maye loolu la borom di wax fii ma taraadaytum bihi min baadil farida te loolu it mën na jóge ci ku góor ki mën na jóge ku jigéen ki man ngaa indi can masalan deux cent mille dafa can kilifa gi soxna si wëlbati ko waat jël cent mille may la ko soxna si mi ngi noonu moo tax fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsan fakuluhu hani an maria suñu borom nee na jigéen boo ko joxee can ba pare mu jël ca mayaat la lekkal mi ngi noonu lekkal ba suñu borom naan hani an maria dañ naan bokk na ci alal ji gën a barkeel soxna su jël ci canam may borom këram kon loolu mbokk nañu xam ni can daal mooy lañu lay laaj avant ñu lay may gannaaw loolu nag li ngeen di gërëmante loolu moom amul fu mu yem wallahu subhanahu wa taala alam ayaka ah waaw bismillah waaw waaw waaw waaw waaw mhm. dañ la wax ne la ni bépp famille dafa am lu ñuy mayee seeni doom moo tax na doon léeg-léeg soxna seen la koy laaj bàjjan yi la koy laaj ak lu ñu la koy laaj famille boobu boo ñëwoon indi quinze mille rek ne quinze mille laa am duñ la may doom duñ la may seen doom donc can bi dañ naan lii la ñu may ay sëram sër yi fi may yëpp ku ne cinq cent mille lañ la may loolu nag laa ne la can du ne rek benn mbir bu ñuy tudd sur place mën na nekk lu bari can mën na nekk tool ba nekk fële saxaaba yi bëri ay tool rek la ñu doon cane kenn du ko gis sax tool ba nekk fay mooy can mën na nekk ak jur suñu mbokk alpulaar yi lu ci bëri ay jur lañ doon joxe can can gi kenn du ko indi ci jàkk ji am déet mi ngi noonu kon li ñu la laaj daal yaayee ko laaj bàyyi la ko laaj li munta ñàkk ci ñu may la soxna loolee la ñuy tuddee ak can can googee nag bu dee ne yow boo ko indiwul kenn du la ko may soo ko indee loolu la ñuy tuddee can la nga jox ci kër gaak la nga joxe ci jàkk jaak loolu lépp mooy la nga xam ne mooy tudd can ngiree ñu may la soxna su dee ne nag can googee paase na la ngay coobaru loolu sax coobara la waaye li waroon mooy bañ demee ca jàkka ja au lieu que bàyyi naan nañ indi 15 jours pour can dafa waroon a ah kii kat canee na soxna si 500000 loolu mooy li jaadu woon donte la ñun du suñu aada fii waaye boo demoon ci dëkk arab yi ak alpulaar yi naam bismillah waaw.
maanaam daal li ma ko xam daal lan moo leen dugal ci ci charia mooy xam ne daal mu dugal ci ci ngërëm yàlla ak li ñuy wax xadaa nga xam ne moom affaire ci la code de la famille yooyu demoon na man ngay def tamit ci wàllu kàddu gi parce que côté ak bu dee côté ci yoon ak côté ci code de la famille dafa mel ne ñoom saaga la ci ñoom wala jigéen bi côté naa dafa mel ne saaga dara nekk wala xam mën ngaa dem ba sëy beneen yoon
waaw ala ala kulli xaal xokk bi moom mooy wa man yataadda hududallahi faqad zalama nafsa mooy maadaama ñi teggi yoonu yàlla ak tooñ rek moo fi mën a am loolu ñu bàyyi ko xel bu baax bu di li nga jëkk a laaj communauté de bien islam xamul loolu tubaab moo xam loolu tubaab yi rawatina catholique nga xam ne diine tubaab en occident quatre-vingt-dix pour cent yi c'est des catholiques catholique dañ naan le mariage est unique mi ngi noonu ci dund àdduna bi unique et séparable da ngeen di unir pour le mieux et pour le pire c'est fini benn yoon ngay sëy sa àdduna jeex na ñoom ñoo xam communauté bi bien mais ñun islam xamuñu loolu sunu doom yi nga xam ne dañ caa dugg nag tooñ ngeen seen bopp mi ngi noonu suñu doom yi ci dugg tooñ ngeen seen bopp ndax daanaka bu ñu xasee wax communauté bi bien ak kenn sax amatul valeur maanaam bu ngeen ñu yéen bokk lépp kon kan nga koy jox sax amu amatul sens kon loolu ak ceddo la goo xam ne jullit du dugg ci loolu amaa nag buñ demee ba yow mi takkoon sëy normal ba pare dem bëgg a fase état ne la fase gi doo ko def te loolu mooy li am fii moo di ne sa soxna mën nga koo tekki fépp état d'accord waaye fase amoo droit fase juróom-ñaar fukki imam buñ daje woon lëj mbët ak sëy ba na sëy bi charia tas na ko pour état danaan déedéet sëy bi tasu ab juge dong man nam xale bu am 30 ans doog a génne ENAM moom dong moo am droit ne tas na sëy bi sëy bi doo ko tas waaye loo ah ah kay jigéen sax bu ko neexee sa jigéen sax bu ko neexee mi ngi noonu waaye juróom-ñaari fukki imam bu dajoon mënuñoo tas ab sëy lii mu waxee ni it loolu yoo xam ne ñu bëri sax malheureusement xamuñu ko mais sa soxna bi nga fase woon fukki at ci gannaaw bu demee si keneen am nga droit dem tribunal ne kay kat sama soxna loolu ma ngi seeg keneen juge bi dañ koy woo dañ koy condamné parce que loolu bigami la ci moom ndax sëy bu njëkk bi état ko war a tas te état tasu ko pourquoi ngi seeg keneen donc loolu mbokk moom ak ceddalu goo xam ne lii déedéet loolu tubaab bi tubaab bi moo ko dogal ci suñu bopp xale yi loolu kenn imposé la ko boo demee dañ lay laaj ndax monogamie nga bëgg wala polygamie nga bëgg wala communauté bi nga bëgg loolu da ngay gis ne ñoom ay galgal la yoo xam ne dañ la koy imposé di la ko laaj xale yu bari na nga xam ne xamaguñ ci diine dara doo ko dajeeg fàccam it da ngay xam ne fàccam mooy asamaan ak suuf dootu bëgg keneen ku dul moom luñ la ci wax nga d'accord communauté bien d'accord monogamie d'accord loolu ngay wax mi boo defee fàccam ñetti weer nag di commencé màtt sa loxo waaw kalaakulli xaal mbokk ñu jël beneen bind kon mu ne wa turaddul mar'a dees na delloo soxna minal jununi ci ndof ga nga gis ci moom wal juzaami ak la nga xam ni mooy gaana yoo xam ne day dagg lenn ci ay cër wal barasi moom mooy gaana gi nga xam ni der bi lay yàq noonu indi ci ay weex-weex mi ngi noonu wa daaul farj ak feebar ya nekk ca payu soxna sa fa in daxala biha su dee nag jot naa ànd ak moom ci lal walam ya'lam ca xamul woon feebar boobee wadda sadaqaha dana joxe canam nga wa raja bihi ala abiha delluwaat ca bàyyi soxna sa moom mu fay ko can ga wa kazalika in zawajaha axuha loolu la ñuy wax bu dee frère am moo ko moo ko maye wa in zawajaha waliyun bu dee nag beneen kilifa ko maye beneen kilifa ko maye lay laysa bi qarib nekkul aji jege qaribil qaraba nekk du jege ca ña nga xam ne ñooy ay mbokkam ya ko jege fala shay'a alayhi ku mel noonu kon dara du ko ca war wala yakun laha illa rubu dinar su ko defee dootul ñeel soxna sa lu dul rubu dinar mbokk fii day wax benn masala jege ni ngi nii nga ñëw takk ko ndekete moom am na ndof gu nekk ci moom kenn waxu la ko bi nga demee ba dugg nga yëg ne kii daa dof mu ne moom canam da nga ko koy jox muy àqam waaye nag am nga droit dem ci baay bi la ko joxoon ne la yow yaa may fay sa can te buñ demee ci àttekat bi baay da lay delloo ak can loolu la ñuy wax ca ngaana ya ak yu mel noonu yàlla nattoo woon na suñu yonent sallallahu alayhi wa sallam ci benn soxna bu ñu ko mayoon bi mu nekkee ba wéeteeg moom mu gis ci moom ay tache jeexitalu tache lèpre ngaana googu yonent bi alayhi salaam daal di koy bàyyi ngir loolu loolu day am am na jigéen ñoo xam ne it dañu am feebar ci seen pay pay bii day gëndaloo fa ñuy àndeeg moom ak fa yi fam yi saw yëpp nekk benn yoon am na ñoo xam ne dañuy am genre yàpp yu koy bloqué ba kenn du mën a yegg ci ñoom ak yeneen yu dema noonu ala kulli xaal yooyu yëpp bu amee ku góor ki bu dee mënu koo muñ ca kenn waxu ko woon ci njëlbeen am na droit delloo ci canam loolu kenn ci sunu ndaw yi jàkka ji dafa ñëw mu ne ma imaam man daal sama soxna si nekk te yoote dafay daanu ay crise épilepsie mu ne nag imaam man lu naqariw ma xam nga lu ma naqari liñ ma ko waxul dégg ci moom seen famille koñ bi yëpp xam nañ ko yëpp xam nañ ko ci moom mais bi ma ñëwee waxuñu ma ko bi muy sëy si yaay ji indi benn boîte ne ma kii daal tant que mi ngi koy jël doo ci am problème mun a xoolal lii rek te imaam kii bu daawloo fii nangam ala kulli xaal mbokk loolu su am na droit delloo leen seen doom waaw xam ngeen ne kii dafa feebar lu tax waxu leen ma ko am na droit delloo leen ko ñu delloo ko caram ah waaw loolu war la war la war la parce que ku am doom ju mel noonu nga xam ne day daanu nga xam ne parce que ay togg ak yëpp du ko man nit jóge fële xamul ci dara ñëw di ko takkas da nga ko ko war a leeral la soo ko ko leeralee moom mu nangu ko def ko fa lay xam li nga noonu benn jeune ci jàkka ji na ma jéggal bu déggee sama kàddu jàngalee tax ma tudd ko dafa ñëw woon ma benn lettre bu triste soxna si bind ko mu ne ko daf ko bëgg a takk soxna si na ko dama lay ñaan nga tekki keneen parce que man sama borom kër ba mu doon sëyal dafa sida moo ko rey bi ma demee def test nee nañ ma manit dama sida léegi dama bëgg nga takki keneen mun waa imaam lu ci sa xalaat mun ko ah bu dee sama xalaat nga may laaj day yow jeune nga mosoo am soxna kii nee nañ dafa sida booy ànd ak moom protection lay doon doom du ci am nangam du ci am xam nga amu droit wax lu dul bu doon mën nu may def mu naa mën a ah man de bu doon mën a dama ko fiy bàyyi yaa ngi de dama ko fiy bàyyi ba mu gis xëy na ku am ñeneen ni soxna xëy na mën na ko toleera ci loolu loolu benn misaal la mais quand même soxna si mu am na sincérité moom wan ko ne déedéet man dama sida ñi ngi noonu ah daje naag waa ji beneen yoon nag mu ne ah imaam de soxna sa mujj naa ko takk man ko ah yàlla na yàlla barkeel seen diggante waaw mais soxna si moom def na devoir am soxna si def na devoir am am maa nag bu dee ne waxuñu la ko am nga droit delloo soxna soose loolu de moom lay wax ca wàllu googee ci nag lay ca lay wax rek nag ne loolu bu dee bàyyoo ko may wala frère mais bu doon ab jàmbur jàmbur boobu moom kenn du ko laajaat canu soxna si ndax jàmbur moom mën naa bañ a xam su ko defee kon soxna sa rëbu dinaar lañ koy jox ila axir yooyu ay yeneen atta la yaakaar naa bind waaw bind bi ñuy mujjee rek mu ne mooy wa yu axarul mutarad wa yu axarul mutaradu sanatan ki nga xam ne dafa tënku munte dikkal soxnaam ñu noonu dañ ko may soxna mënul ànd ak moom ci lal daan ko may délai un an fa in wati a su mënee sëyeg moom ah bi jeex na wa illa furriqa baynahuma in shaat wala boog ñu teqale seen diggante su dee dafa neex la nga xam ne nii moom mooy soxna si ca mbokk loolu waaw naam mooy ci nga xam ne dafa dañ ko may soxna tey yàlla dogal munta ànd ak moom ci lal am na ci ñoo xam ni yàlla nattu na leen ko mënuñu ko te duñ ko mën ba faw am na ci ñoo xam ni la leen koy teg mooy ak njabar am na ci ñoo xam ne la leen koy teg mooy tiitaange ci loo xam ne mosoo koo xam ñu ngi noonu ñu jàpp dañ leen njabar fekk sax kenn njabaru leen waaye nag njabar da koy def xam ngeen njabar mbokk suñu borom ba mu koy tudd ci alquran benn kaarik la ci yàlla tudd doonte ne njabar dana rey nit njabar dana dofloo njabar dana dàq nit njabar dana lu ne njabar mën na ko def bi iznillah waaye benn rek la ci yàlla tudd maa yufarriquuna bihi baynal mar'i wa zawj nu ñu def ba teqale diggante jëkkër ak jabar borom bi nag ne duñ ci lor kenn su ko defee waa ji suñ ko mayee soxna si boole ko ak moom mënu koo dikkal dañ naan ko demal faju ji demal faju ji may ko délai un an su un an yi jeexee nag su neexee soxna si mu génn ci sëy su neexee soxna si mu muñ benn góor ci góor yi jàkka ji fii yàlla nattoo na ko mu am benn ñaareel mu ne ma imaam su ma demee fii nekk góor su ma demee fii nekk jigéen nee na soxna si na ma muñal rek nga faju muñal nga faju xam naa lii nit a ko def mu ne imaam ñetti at ñetti at ñetti at nee na ñetti at soxna saa ngi muñ fa lillahi alhamdu yàlla mujj na koo wéral ba seen ñu doom sax takk nañ ay soxna seen ñu doom sax takk nañ ay soxna waaye ñetti at soxna saa ngi nekk ci kër gi di ko muñ mi ngi noonu góor gi di faju góor gi di faju góor gi di faju baba yàlla da koo tekki am maa nag bu dee ci sharia soxna si bu fa defee un an ci sëy bi am na droit tas te booba sharia day ànd ak moom loolu kon mooy mbir bi dafa mel ne pour bilal noonu des na cinq minutes moo tax ku mu ne wal mafquud yow mi jël bind bu bees wal mafquud koo xam ne daa réer yudrab lahu ajlun dees na ko jox ab dig dees na ko dóoral ab dig arba'u sinin ñeenti at min yawmin tarfa'u zalik ci bis ba ñu yëkkatee mbiram ca attekat ba wa yantahi al kashfu anhu ca fekkee jeexoon na gis gëstu ga ñuy gëstu ci moom suma taxtaddu ka iddatil mayit gannaaw ba soxna sa iddawu comme iddawu ko jëkkëram faatu summa tatazawwaj gannaaw bu mu daal di sëy inshaat bu ko neexee wala yuurasu maalahu waaye nag ah maaluhu alalam kenn du ko donn xatta yaatiya alayhi min azamaan xanaa lu dul ne dafa ñëw ci moom ci zamaan ci temps maa la yaishu ila mislihi loo xam ne kenn du dund ba jamono temps boobee ñëw kii day indi benn kaa benn waaye ngi génn dem kenn xamul fu mu dem wër nañu wër wër wër wër ba sonn kenn xamul ci moom dara loolee boroom xam-xam yi dañ ciy génne ki nga xam ne dafa nekkoon ci guerre walla ki lab ci nekkoon ci bato ci gaal ku mel nii moom bu ñu ko wëree yenn wër yi dañuy jàpp ne dafa faat amma bu dee koo xam ne daa génn rek dem kenn xamul ci lu mu nekk kenn xamul lu ko génne su boobaa buñ demee ci attekat bi danañ waaw d'accord à partir de tey nañu xaar suñu toogee quatre ans yoo xam ne amuñu ci moom benn xabaar ñu ne kon ndaw si à partir de tey commencé tënj ñu jàpp ne waa ji dafa faat mu tënji quatre mois dix jours gannaaw ba dem sëy ku ko neex gannaaw ba dem sëy ak ku ko neex amma alalam moom dañ ko fay garde ba ba ñuy yegg ci temps boo xam ne jàpp nañ ni lii moom nit mënatu ko dund donte ne foofu boo demee ci fuqaha u maliki yi dañ fay wax wax yoo xam ne xel sax du ko mën a nangu parce que dañ naan alal dañ ko fi denc juróom-ñetti fukki at ay xam ngeen bokk juróom-ñetti fukki at loolu dafay doon lu xam ne lu xaw compliqué la ala kulli xaal ñoom ci wàllu googee loolu la ñuy wax mooy daal alal ji moom dañ ko fay gardeel ba ba ak maasam jeex ñu maasul ñëpp ñu xam ne jeex nañu ñu yàpp ne kon léegi moom war naa dee loolu moom la ñuy wax ca la nga xamee ne ni moo aju ca wàllu googee kon mbokk comme ni ngeen ko xamee wàllu buntu sëy daanaka ci bunt yi gën a yaatu ci fiq la bokk yi gën a compliqué it ci fiq la bokk islam jox ko ittee njëree sëy mooy stabiliser doomu aadama moo koy dalal te itamit ak tas munta ñàkk waaye islam it day insister toujours ci ñuy fexe ba tas gi bu mu yàq mbokk gi bu mu yàq dëkkandoo gi looloo tax jéego yi muy jël pour sëy bi am jéego yi mu jël ci tas ba moo gën a yaatu sax booy seet loolee kon di mbir moo xam ne ni it ku nekk ci ñun na ci bàyyi xel bu baax mooy rafetal suñu kémtalal kattan suñu borom mu ne wala tansawi l fadla baynakum bu leen di fàtte ngëneel yi nga xam ne da ngeen koy defee def seen diggante gannaaw bi it wa an taafu aqrabu li taqwa ku nekk ci ñun heure buy dugg ci sëy heure buy fase soxna ngallaawaay mu xool ca la nga xam ne mooy ragal yàlla wa man yattaqi llaha yaj'al lahu maxraja wa yarzuquhu min haysu la yahtasib kenn du ragal yàlla ci sëyeem ragal yàlla ci faseem lu dul yàlla dana ko mos a wërsëgal lu seral xolam ci foo xam ne ni foogoo ko foo ko fa woon ñu ñaan borom bi subhanahu wa taala yàlla nañu yàlla tànnal sëy yu barkeel tànnal ko suñu njaboot ak bépp julit wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain waaw ku jëkk jukki ba ca nag ko waaw loolu bind dimanche bi di ñëw insha allah dañ ko jàng mooy li ñuy tuddee alxol o mooy su dee soxna si moom moo gis ni borom këram gii kat nanguwu koo fase dafay génn ci sëy bi loolu la ñu tuddi summi konte su boobaa moom mooy jël alal jox waa ji su dee waa ji moo fase waa ji mooy jël alal jox ko moo tax ñu leen ku jëkk a jukki ba ca mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam waaw ala kulli xaal naam naam naam naam naam naam loolu day am loolu day am lool lool lool lool naam loolu loolu am na c'est-à-dire que ne bari na ci ñoo xam ne bu ñu duggee ci néegu sëy la seeni problème commencé feeñ ku mel noonu moom ay parents duñ leen ci wax dara loolu bokkul ak nag koo xam ne parents yi xamoon nañ li nekk ci moom ba pare nëbbu ko borom këram mi ngi noonu te mën na am bu ñu amoon ragal yàlla gu toll ne leeral ko waa ji du tee mën na ko takk ngir loolee nga xam ne sincérité la bu am ci ñoom bañ leeral ko loolu mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala naam naam wallah
nit ñi bu ko defee ba yàlla amatul lépp même bu tuubee pour bu sincère ak pour yàlla bu ko su ko tax yàlla moom dina ko dina moom bu mu mën a tuub ci àdduna mais atem la dina ko atem maanaam yàlla du ko baax waaw kon loolu yar yi daw loolu di di sori beneen bi mooy nee na dafa jëloon marchandise valeur lu mot valeur dix millions nee na marchandise bi lam ko moom muy laajte sax marchandise boobu war nañ ko génneel ak wata wala bu fekkente ne war nañ ko génneel ak nan lañ ko génneel ak ala kulli xaal ndax ki nga xam ne dafa njaaloo fokk daañ ko dóor fii wala ñu dóor ko fële loole moom la mu wax tegu ko ci xam-xam suñu borom yàlla subhanahu wa taala su doon dafa wax ne atteb lislaam bu fi amoon waa ji njaaloo ñu jàpp ko même bu tuubee atte bi dañ ko koy teg même bu tuubee atte bi dañ ko koy teg atte bi amu fi ki nga xam ne dafa tuub amul benn atte bu ñuy teg doomu aadama bi àllaaxira gannaaw bu mu tuubee suñu borom yàlla ba muy indi listu musiba yi indi na lu gën a garaaw njaaloo fuuf te mooy shirk bokkaale borom bi subhanahu wa taala loolu tax mu ne ibadu rahmaan yi ñoo xam ne du ñu bokkaale du ñu rey nit du ñu njaaloo mu ne lii de ku ko def da nga dajeeg mbugal waaye mu ne illa man taaba lu dul nag koo xam ne daa tuub wa amana wa amila amalan saliha loolee kon képp ko tuub negam shirk bi gën a rëy boo ko tuubee yàlla baal la waxumaa leneen lu dul shirk inna allaha la yaxfiru an yushraka bihi wa yaxfiru ma duna zalika liman yasha loolu mooy même ñu tuubul bakkaar bi boo demee yàlla mën na la ko baal ci njéggalam mu yërmaandeem shirk bi moom fokk da nga koy tuub bala ngay dem képp ko indi shirk moom yàlla du la ko baal loolee di mbir boo xam ne kon loolu la ñuy wax wallahu subhanahu wa taala alam waaw naam ñu pour yo tëj gaay waaw waaw beneen question waaw mooy dafa jaay marchandise marchandise bi lamb ci ay loxo maadaama marchandise la bu muy gaaral di ko jaay année bu nekk dafa war a xool valeur am la mu toll ci lambaayam moo génne base boobu zakat mais marchandise am la ñu tuddee urudu tijaara tant que yow yéene bi mooy teg nga ko di ko jaay loole da ngay gis ne dafay war ci moom nga génne ca zakat mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah waaw ala kulli xaal liñ ci wax mooy képp koo xam ne am na feebar bu nekk ci moom góor la wala jigéen mu nëbb ko moroomam kooku ba mu ñëwee la koy doog a xam am na droit génn ci sëy te bu demee ci attekat bi attekat bi da koy jox dëgg loolu moo tax ba tey jii boo demoon ci dëkk yu bari sax même xataa am nay dëkk arab yoo xam ne dañuy imposer bala ngeen a sëy ngeen def bilan ba xam amu leen ay yenn feebar yu mel ne masalan ay drépanoog ay kasawa kasawa kasaw muhim daal nit ki li nga xamul moom xamuloo ko waaye képp koo xam ne wóor na la ne ab feebar buy wàlle mi ngi ci yow feebar chronique boo xam ne ni mi ngi ci yow ngay dem di sëy góor wala di sëy jigéen te leeraloo ko ko mu ñëw ba dugg ci sëy bi doo koo xam am na droit génn ci sëy bi ala kulli xaal ab daan buñ ci am loolee xam nañ ne ki nga xam ne mooy atte dafa am yeneen mbir yuy dellu ci attekat yooyu ay détail la ay détail la yoo xam ne moom attekat ba moo koy xam mais règle générale bi ñuy wax daal ci wàllu way dencante yi mooy ku nekk ci ñoom dafa war a laayi biir sa moroom heure boo xamee ni nii gis nga ci mo- morom bi wax naa la sànq yonent bi sallallahu alayhi wa sallam soxna suñ ko may ba mu ko gisee gis ci moom ay trace su ngaana daf ko daal di bàyyi loolu ñuy wax ku jigéen kiit loolu ñuy wax loolu ñuy am ci ku góor ki ku jigéen kiit loolu la am islam may na ko droit boobu amma nag su dee jot na ko walla feebar ba loolee moom atte la yoo xam ne yeneen atte la yoo xam ne aji atte ba mooy xool fan la ci toll wallahu subhanahu wa taala aalam naam mbokk bi waaw ala kulli xaal liñ ciy jàng daal mooy takk nga soxna bi nga takkee ci moom gis nga ne ne waajur bi la ko may kii mu la may daa am ayib maadaama jot nga ànd ak moom ci lool dane canam moom dënk koy jox waaye nag baay bi la ko may moom moo lay delloo sa can soxna si lañ ko jox canam ndax yaa ànd ak moom ci lal waaye cent mille nga ko joxoon baay bi dalay delloo sa cent mille soxna si moom bu ñu ko xisee ba ba bu ñuy tuddee delloo kanam mooy sëy bi tas na maadaama sëy bi tas na bu ko neexee dem sëy ak keneen maadaama sëy bi tas bu ko neexee sëy ak keneen loolu mbokk mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam ala kulli xaal yu bëri ci dañ koy atte dañ koy wax ni mais dana jafe mu feeñ suñuy atte ndax atte bi ñu tiim di atte ceddoo nañu xam ne am na benn livre boo xam ne ay mbokk yu farlu ci collectif yi nekk woon aéroport def nañ ko ànd ci ak lu bëri bëri ci sëriñu Sénégal yoo xam ne bi ñu wootee fii ci institut islamique néew na këru diine lu dul am na sëriñ bu fa jógee ñu def ko benn téere boo xam ne dara lañ cee wax lu dul sëy ci lislaam kese nu ñuy fexe ba indil ñu ko ñun jullit ñu ci attewoo loole président ba mu tombee lool bañ ko ko wonee def nañu dañ maa yëpp yaa ngi dégg àll wala mbir ba doxa tabbi géej waaye loolu lu mënoon na nekk la naam waxuñu ñu dagg loxo wala ñu rey kenn wala ñu duma kenn comme ni ko tubaab bi bañee waaye nag quand même lii aju suñu wàllu sëy moom mënoon nañ ñu koo may ba nga xamee ne nii bépp cas boo xam ne fiq islam nii la ko tëralee ay jurit bu ñu jaaxalee dellu ci attekat bi soxalal leen loolu waaye yi ñuy jàng yëpp yëpp yëpp yëpp dafa nekk en contradiction complet ak la nga xam ne nii moom mooy am suñu tribunaux yi loolu kon mi ngi noonu boo tax léegi-léeg duñ la tooñee doo mën lu dul muñ dellu ci yàlla rek wallahu subhanahu wa taala mooy almustaan ala kulli haal lii buñ koy wax parce que jafe-jafe daa am yàlla nañu yàlla teggal jafe-jafe yi ci sëy yi may ñu jàmm faafiye fi dunia wal axira wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain naam